laqin lisaani waxlulan minhu luqad wajcalhu zaakiran wa shaakiran abad wajcal kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu ñu jéggal bëgg dikk ànd ak yéen ni ñu ko baaxoo defe ci ay bis jot di jàngatandoo ak yéen mbindum sëriñ bi radiallahu anhu te ñu nekk boobu ba tey ci téeram bi nga xam ne moom la tudde Munawwirus Sudur suñu bind bu mujj ñu toll ci bunt bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiallahu anhu def jagleel ko muy bunt boo xam ne def ci indi njariñ yi nga xam ne moom la ñuy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lor yi nga xam ne moom la iblis di lor doomu aadama mu mel ni suñu bind boobu ñu ngi ci taxawoon ci fi nga xam ne euh, fi la sëriñ bi di wax ne bokk na ci njariñ yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi jariñ na ko xeetam wi mooy laabire gi nga xam ne moom la leen doon laabire ci lépp loo xam ne mooy yéwénal seen mbiru diine waaye lépp loo xam ne mooy ñoŋal seen tawxiid waaye lépp loo xam ne moom mooy dëgëral seenu jaamu yàlla waaye lépp loo xam ne mooy sellal seenu jaamu yàlla sëriñ bi di continuer rek di wax ba tey ne wa min madarrati aduwina bokk na ci lori suñu noon bi allahin kadi kañu rëbb alayhi yàlla nekk ca moom laanatun am rëbb minal baaxi tukkee aji des ja mooy sunu borom bi subhanahu wa ki nga xam ne ci moom rek la ñuy sàkkoo ndimmal ci moom rek la ñuy dimmanikoo adaawatun ak noonoo minhu bu tukkee ci moom iblis tawajjahat jo jublu na ila man jëm ci képp ka nga xam ne yatlubu dana sàkku allah yàlla allazi ma xam ne yooti dana joxe dana xéewale al ilaa ay xéewal wa innahu naka moom iblis Euh, yaskunu day dëkkal li xayri zi ñeel kudul boroomuk texe za iaada muy boroomuk baamu lil ixwaayi jëmale ko ci ak mbew wa kullu zi saadatin képp kuy boroomuk texe fallahu yàlla yaxmiihi dana ko aar anhu walif iblis maama ànd ak nga xam ne wallahu walaahu méng na ko iblis sëriñ bi radiyallahu anhu nee na bokk na ci lor yi nga xam ne moom lañu iblis di lor moom noonub lislaam bi di noonub képp koo xam ne jublu nga sa borom bi subhanahu wa taala di ko jaamu ci anam ga gën a sell bokk na ci lor ga nga xam ne moom la ñuy lor mooy képp ku mu gis nga jublu suñu borom bi subhanahu jël sa lépp jox ko ko euh, di jaamu suñu borom bi subhanahu te di ko sellal dana fexey ba dugal ci sa Euh, biir loo xam ne dana yàq jaamu googa wala dina fexe ba dox sa diggante ak jaamu googee euh, di def ci ñi nga xam ne ñoo ñoo ñàkk texe maanaam ñoo texe di def ci ñoom ak mbewte waaye def ci ñoom ay moy yàlla di leen xirtal ci ay moy yàlla di leen xirtal ci loo xam ne moo di ay bàkkaar waaye nag képp koo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala namm na ci yow ak texe iblis moomu suñu borom bi subhanahu wa taala la ko fegal waaye saytaane moomu di noonub lislaam di noonub képp koo xam ne jublu na suñu borom bi subhanahu wa taala di ko jaamu euh, suñu borom dina la fekk ci moom kon képp koo xam ne iblis dafa dugg ci say biir wala saytaane daf lay gàllankoor ci yu bëree bëri euh, na xam ne ñooñu boroomi texee di rek lan ndax képp koo xam ne suñu borom bi subhanahu na ci yow ak texe ëllëg Euh, nar na ci yow lu baax ëllëg dana fexey ba aar la ci iblis moomu waaye dana fexey ba lépp loo xam ne mooy jëfi iblis ju dana fexey ba muccal la ci mu ne wa min manafii nabiyi bokk na ci njariñi yonante bi almuttaba kadi kañ tànn alayhi yal na nekk ci moom taslima karimin musali aji tedd ja xam ne ittaba tànn na ko ippauhu ak desalam moom yonente bi waraahu ginnaawam ma lépp la nga xam ne kafa fekk na al aza ñeel ay lor li xëyri diinihi ñeel ludul diinem fan kafaate mu fegu fa saruhu yoonam bi moom yonente bi saa sallam te mooy islaam nasaxa folli na aksin ci ludut ab xaidan muy aji wommat li xayrihi jëm ca yiwam wa nee na bokk na ci njariñ yi nga xam ne yonent bi saa sallam bàyyil nañu ko te mu di ay njariñ mooy desal gi nga xam ne moom yonent bi saa sallam desal na ko ci ginnaawam diinay lislaam muy diine joo xam ne euh, moom la suñu borom subhanahu wa taala tànn muy diina joo xam ne mooy diina ji mujj a wàcc te jenn dootu ko folli desal gi ma ko desal ginnaaw moom yonent bi saa waaye desal ko ba pare fekk ko ci lépp loo xam ne mooy lor waaye fekk ci lépp loo xam ne moo koy gàkkal euh, desal googu ko yonent bi saa sallam suñu ginnaaw loolu njariñal jullit ñëpp la waaye njariñal euh, jaami suñu borom bi subhanahu wa taala yëpp la ndax lislaam dafa doon diine joo xam ne yàlla daf ko wàcce mooy diine ji nga xam ne moo gën ci diine yi waaye wàcce ko ci yonent bi nga xam ne moo gën ci yonente yi waaye it wàcce ko ci xeet wi nga xam ne moo gën ci xeet wi su fekkee nañ ma ngay jëfe euh, lu baax waaye di moytandiku ab safaan loolu la suñu borom subhanahu wa taala di wax ci alquran ne wa man yabtaxi xayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirin képp koo xam ne jàpp nga lu dul diine muy euh, euh, diine képp xam ne jàpp nga lu lislaam muy diine na xam ne sa diine jooje kenn dootuloo ko nungul te ëllëg ca way pertange ñu lay bokk kon euh, suñu borom subhanahu wa taala wàcce diine jooju ci yonente bi saa sallam yonente bi jàngal ñu ko waaye ñoŋal ko ginnaawam ba xam ne dara dootu ko mën a sànq waaye mu doon diine joo xam ne euh, diine la ju sell joo xam ne lépp ca suñu borom bi subhanahu wa taala la bàyyi waaye lépp borom bi subhanahu wa taala moo ci jox yonente bi sallallahu alayhi ndigal ngir mu war koo jàngal ñi nga xam ne ñooy euh, xeetam wi euh, mu wàcce ko it ci xeet woo xam ne euh, li suñu borom subhanahu wa di wax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de li feek ñi ngi nekk ci ndigle di bàyyi tere nee na ñooy xeet yi gën ci xeet yi kon yonent bi sallallahu alayhi wa na ba diina jooju nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala wàcce woon ci moom mu fexey ba ñàkk ko waaye fexey ba wàccal ñu ko ci ginnaawam mooy lu lu aaru loo xam ne dara de du ko mën a yàq euh, ba ëllëg euh, bis euh, keroog bis penc kon diina la joo xam ne moo folli jëpp diina joo xam ne mas naa ñëw ci jiitu ko diina yonente bi sallallahu la wasallam moo folli diina jooja te mooy diina ji nga xam ne moo fi sax ilaa yawmi diini te mooy diine ji nga xam ne euh, moom rek lañ war a wommatu jëm ci waaye ci moom rek lañ war a euh, euh, bàyyi xel suñu borom subhanahu a taala waaye ci moom rek lañu mën a sukkandikoo di jaamu suñu borom subhanahu wa taala te jaamu ga tege ci dëgg sëriñ bi di wax ba tey rek ne wa min ajaibi safii bokk na ci kéemtaani aji rammuja almutama kadi koñ tànn alayhi yàlla na nekk ci moom xayru salawaatin gën gi xeewal toxtama joj def na ko tànn maa salaamin ànd ak mucc euh, rabbi yi salaami rabbi yi ànd mucc gu bàyyi koo fa suñu borom fil xaali ci tey euh, wala fil xaali ci léegi wa sahbihi ak saxaabaam fil xaali ci adduna wal maali ak ëllëg yowmal xiyaam taw jiixu rabbihi jubal ak borom bi subhanahu wa taala bi jaay alazim jay aji màgg ila xadimihi jëm ca liggéeykatam ba di xaadimu rasul bisa durri ci wii la nos nazimi bay aji nosu xifzan ak wattu waraayan ak sàmm laazamaagu taqoona tawfiqan tawfiq bi kawnihi ci ak nekkam moom xaadimu rasul sallallahu alayhi wasallam alxalifata di kuutaayul yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye di àndaaleb yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na bokk na ci kéemtaani yonente bi sallallahu alayhi wasallam def gi mu def sëriñ bi radiyallahu anhu muy euh, ab liggéeykatam waaye def gi mu def sëriñ bi radiyallahu anhu muy wuutaayam fii ci euh, adduna ci ginnaawam waaye def li mu def sayidna euh, sëriñ bi radiallahu anhu muy koo xam ne euh, lëkkoo lëkkaayub yonente bi salallahu alayhi wa sallam la nga xam ne li nga xam ne moo ko bàyyi ci àdduna wala li ko fi taxoon a ñëw lépp mooy lan mooy yeesal li nga xam ne mooy diina yonente bi salallahu alayhi wa sallam waaye euh, bàyyiloo xel li nga xam ne mooy diina ji nga xam ne moom la ñëpp war a bàyyi xel te war koo jaamu Eh, moo tax mu doon wax naan diinun siwa islaamuhu la yuhmadu inda al ilahi wa bihi nu jaddidu kon loolu moo taxoon eh, sëriñ bi radiyallahu anhu nekk fi waaye nekk fi wuutu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi eh, ko moom sëriñ bi radiyallahu anhu waaye wattu ko aar ko ci bépp fànn ci darajaay suñu borom bi subhanahu wa taala mu màgg moomu kon donn gi nga xam ne moom la Serigne Touba radiyallahu anhu doon noon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak nekk gi nga xam ne moom la nekkoon di liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dafa bokk ci kéemtaani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gi nga xam ne war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax baax moo tax Serigne ne bokk na ci kéemtaani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy euh, jubale gi nga xam ne moom la ko suñ borom jubale moom xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam Euh, ci way wii muy aji sàmm waaye di aji wattu di aji aar lépp loo xam ne moom la fi euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon waaye mu wuutu yonente alayhi wa ci euh, sàmm li nga xam ne mooy diinam ji waaye di ko ñoŋal comme noonu nga xam ne noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallama doon jàngale kon loolu ay tegtal yu bëree bëri am na ci ndax euh, sëriñ bi radiyallahu anhu dara mësu koo ñor lu dut xeeñ ku yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dara mësu koo ñor lu dut li nga xam ne mooy islam ji nga xam ne moom la fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon waaye dara mësu koo ñor lu dut li nga xam ne moom mooy euh, alquran kon yooyu yëpp ay njariñ la yoo xam ne day tukkee ci yonente bi alayhi wa waaye mu bàyyi fi diine joo xam ne diine ju mat la joo xam ne amul jenn diine joo xam ne mënati naa ñëw ginnaaw waaye diine joo xam ne lépp loo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala war a leeral leeral na ko ci diine jooju ba nga xam ne mi ngi wax ci alquran al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islaama diina kon Euh, diina jooju nga xam ne moom la yonente bi sallallahu andi diina ju mat sëkk la waaye diina la joo xam ne euh, diine ju euh, am ak ñoŋ la nga xam ne dara mënu koo yàq waaye diina la joo xam ne képp koo xam ne sàkku nga jeneen diina ju dul diina jooju ci ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam sa diina jooju kenn du la ko nungul diina jooju nag yonente bi saa sallam bàyyi ko fi waaye cheikhul xadim radiallahu anhu di kóotaayam ci diine jooju di ko sàmm di ko wattu di ko aar comme ni nga xam ne noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon aare sëriñ bi radiallahu anhu nee na loolu ci kéemtaani yonente bi saa sallam mi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko tànn wàcceel ñu ko ngir mu teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim nee na def gimma suñu borom subhanahu wa taala def may kuutaayam loolu dafa bokk ci kéemtaani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon euh, loolu la ñu bëggoon a ànd ak yéen tey ñuy tuub bu baax a baax tey jégglu di dog ngantul ci dëng ngeen xam na ci suñu euh, ñàkk leeru làmmiñ la waaye du ci jub ñu sante ko yàlla euh, in uridu illa lislaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala sahabati wa saadati kullihim ridwaanu rabbil araadi wassamaawaati ala saxaabati wassaadaati kullihim ridwaanu rabbil araadi wassamaawaati